ku jolof njaay raw na leen ka doobu borom juhaay raw na gaañu kajoro ak bawal sil saalum fuuta ku jor gal beena rawa ku jeelu yoolenge kajoro ak bawal sil saalum fuuta ak jolof njaay raw na leen ka doobu borom si tubaa raw na gaañu kajoro ak bawal sil saalum fuuta ku jor gal beena rawa Fuuta ak Jolof Njaay raw na leen fa dootu faral moo tax ku mu neex ak ku mu neex wala moom la jëloon ku mu neex ku mu neex ak ku mu neex wala moom la ci jamono Sëriñ Tuubaa moom moom ku mu neex ak ku mu neex

أين موضعهم لا بض الأرس بض القال فلو نبذل ولو نجسف حرد النار بكل أرس بكل خالص فلو نبذل بدت فلسف لدى إبرا فعل با بض الأرس بض الخالص فلو نبذل déewoo ko nara bëggul urus bëggul xaalis léewul naga kono bëggul urus bëggul xaalis sa noobu Mustafa ka baax ku sopp soxna naata silla sa loxo ci bëggul urus bëggul xaalis léewul naga kono dollar. Ariana الله يا من أتيت وعيد أتيت وعيد توعيد سنجم بمن يا من أتيت وعيد عمر مفاتن كين فدنا عمر مفاتن بغ مان ني سيغ اسماعيل مباك سلوخو عمر مفاتن كين فدنا بغ مان ني سيري اسماعيل سلوخو سين عمر مفاتن كين فدنا سين عمر مفاتن بغ مان ني سيري اسماعيل سلوخو سين عمر مفاتن bamba bamba bugul bagana Cheikh Saliou wax ji Cheikh Saliou sangla wax ji Cheikh Saliou sangla ay sooyira ay sambake ndula war ci jamono jox ci Cheikh Saliou sangla wax ji Baye Saliou sangla ay Cheikh Saliou sangla ana so tay Baye Saliou Mbacké sama koy amba am di ana tegen am sooyira ko tegen ma ke ba ya ma moo ci doon Mbàkke daal Baysal Mbàkke am ba am du am sori Mbàkke daal man ne ku bëgg a màggal si déwén mbir nii sa loxo lu màggal borom baax daal kii di jamono am ba am du am sori Mbàkke daal Bakkedullah amamallah bakkeday amamallah ak leen gaañu teewlu leen mama teewal li ci sa xol ci sabdu bi ak sellal sellal ma teewal li ci sa xol ku bëgg suñ Ismaïla Mbàkke sa loxo bu xasalil gaañu teewlu leen mama teewal mama teewal lu ci saaxo yi di songu ak a sellal sellal suñ Ismaïla amul lu moroom ku sopp suñ Ismaïla Mbàkke sa loxo ci xasalil gaañu teewlu leen mama teewal mama teewal lu ci saaxo yi di songu ak a sellal sellal yu dee kaañu teewlu seeral li ci saa xol bi ku sopp sëñ Ismaïla Mbacke sa loxo ci at leen gaañu teewlu leen ma ma teewaan li ci saa xel ci sangu bi ak sellal sellal yu dee kaañu teewlu leen sëñ Ismaïla amoon moo Serigne Ismaïla Mbacke sa loxo di sëtu jiili sëtu imam la ku xóotal ku xóotal ci sa xol booy xalaat de xam ki ma waajal waajal Ismaïla amul moroom ku bëgg Cheikh Ismaïla Mbacke sa loxo di sëtu jiili sëtu imamul xuuta xuuta xel mooy xalaat te a tàggoog de sëñ Ismaïla Mbacké sa loxo dëkku maamam sa ku mu wéeru bu ne baax daat da xam nga waat bu ko suulal suulal ajo yi teewlu leen mama teewal mama sa loxo dëkku maamam sa ku mu leerul ne baxdaat a xam nga waa jokko siiwal siiwal la tey imaam ku ci ñi ñaar ñoo ko seq tax na ba seesul xel bopp dee ka xéeru mel ne ku réeru réeru naru man naa tayaa la Mbàkke sa loxo ñi la ñaar ñoo ko seq te tax na ba siisul ba siisul te du boddee du xeeru mel ne kuréeru kuréeru kuréeru daaje teewlu Sëñ Ismaïla amul moroom ku bëgg Sëñ Ismaïla Mbàkke sa loxo ñi la ñaar ñoo ko seq te tax na ba siisul ba siisul te du boddee ka xeeru mel ne kuréeru Ismaïla Mbacké jugleen taxaw na ko magal way Ismaïla Mbacké def way jugleen taxaw na ko way Ismaïla Mbacké sa loxo tuubu la ñaar ñoo ko seq ba tax na ba siisul ba siisul te du jot beek a xiiru mel na ko sëñ Ismaïla moom murit la ku bëgg sëñ Ismaïla Mbacké sa loxo ci sang baa ngi sëñ Ismaïla Mbacké moo ak Mbàkke dox bu sedd di ko fantal atale yaa ñu déglu ku sopp si bu ko ñuy ciip Mbàkke kenn góor a mbër la yàlla la Cheikh Ismaïla amul moroom sëñ Ismaïla Mbacke sa loxo la mu siiwee ba imam la ma jaaxal amulay bañ tawaaju du ko tuutal tuutal leen gaayi teewlu leen sëñ Ismaïla amul moroom ku sopp sëñ Ismaïla Mbacke sa loxo ci sëtu jiilee di mbër mu màgg mu moo ñu def ko moo

Cheikh Ismaïla Mbacké Cheikh Cheikh Ismaïla Mbacké Cheikh Ismaïla ko ko sotu basata kulayra Ismaïla ko ko dorna Allah fi awqat Ismaïla ko ko sotu ko sotu Cheikh Ismaïla di ko taxaw ci ko yëngu taxaw Bakar Magal bi waay Cheikh Ismaïla Cheikh Ismaïla ko ko sotu basata kulayra Ismaïla moom mi ëpp naa tudd maamam sëñ Abdou Khadir tuddal way juróom sëñ Moudou Abdou Khadir ku ko miin te daan ko fréquenté xam nga ne doxoon doxinu maam Cheikh Rafal la yoroon moom Baye Fall la woon barki sëñ Touba dugg naa fii ci biir kër gi waaye juróom soxna Naata Sylla di waxtaan ak man ci sëñ Modou Abdou Khadir trois heures de temps te bu mu wax du ca dem barki sëñ Touba soxna Naata waaye juróom moom nee ma sëñ Ousmane mu ne ko waa mu ne ma sëñ Modou Abdou Khadir ku tëdd ba guddi ñu ne la yaa ko gën a doon murit saalix ña la ko wax dañ laa bëgg waaye xamul daal ne ma borom jëf ju bari la woon ju bare bare bare bari te du ko wax. te yooyu qualité dama ko gis ci sëñ bi man na laa bëgg sëñ Ismaïla man na laa bëgg di la defal adduna ak li ci biir te wallaahi azim yow mi toog fii mu di la ko defal ak toog fii ci ci wetam ku ko xam ci yéen ñaar yaa ko wax waaye moom du ko wax bu ko neexoon wax naa ko daaw nee naa ko su la neexoon tegale say tànk toog fale ndax kuy sa waajur sëñ moo Abdou Khadir kuy waajuram sëñ Abdou Khadir kuy sa waajur soxna Naata Silla kuy waajuram sëñ Modou Ba Silla waaye sëñ bi te ku xam ko ku xam ku xam sëñ Modou Ba Silla doy na sëkk ci séddu barki sëñ Touba waaye nag Mbàkke noo ngi ñaan seen barke yooyu la yooyu leen sëñ Touba defaloon li muy bari bari bari bari yàlla na dootu ko sa jëmm nii nga def takk sa ndigg jël tuut tànk yi ak jigéen ñi di leen dimbali ci yoonu Serigne Touba di leen gindi jiitu ci seen kanam tamanoon a toog rek joxoñ leen waaye yaa njëkk a takk sa sa der jiitu ñu topp ci sa ginnaaw ngay liggéey loo xam ne mboolem ñi say waajur te ne ci réew mi ak ñi nga xam ne say mag lañ koo ci wéetal boo ko nee sëñ Ismaïla sama xarit la dangay dangay da ngay am fierté wax ko ko kon Mbàkke ñu ngi ñaan loolu yàlla na sax te jëm kanam yàlla dimbali la ba li nga bëgg a def ci ñoom nga def ko ci ñoom ba mu àgg ci darajee Sëñ Tuubaa xam nga ne liñ waajaloon ëpp na lii waaye àddunay xel jamonoy bët xam naa ne nit ñi bëgg nañ la bëgg gu toll ne mu fi doon fanaan duñ buuse ndax ku ñëwoon daaw fee xam nga ne bu bu lii amee rek am na lu xew nga jëfe ndigal nag mate ko sëkk bi jox jokkoo téléphone man ak yow da nga ne ma mboolem li nga xam ne sama waajur yi digle nañ ko di ko def man la nga ne ma duma ci teggi dara kon fi nga teg sa tànk fu dëgër la mi ngi noonu yàlla na jëm kanam ci dara ji xasaay bi li ma ko waxee rek li ñu waajaloon ëpp na lii ku ma xam-xam ne man man ku dama doyaar ndax damaa bari roq waaye nag damaa bëggoon rek nga nga kontaan man bu sa xol seddee rek sama xol sedd na ndax nag sa maam sëñ Abdou Khadir lañ ne. lañ ne kum jiite ak julli doo lakk man jiite na ma ay ajjuma ba tàyyi barke Serigne Touba sëñ Abdou Khadir kum jiite ak julli doo lakk xam nga wax nga léegi ne biñ koy jox aw tur borom li sëñ Touba waxoon borom daaru waaye loolu la loolu la ci teg kum jiite kum jiite nga texe te deret dereti sëñ Abdou Khadir la yor kon ku ko bégloo ku ko bégloo man ngaa texe moo tax ma bëgg ma bëgg ma ma ne woon naa ñëw rek ba sa xool sedd ma doog a jóg dem kon nag Mbàkke suñu xool sedd na guy ñi ngi siyaare sa wajur bu baax wi soxna naata di sama wëllëre nu yàgg lool moom it mu jàpp ma def ma doomam doomi boppam maa ngi ñaan yàlla guddalaw fanam te wéral ay cëram ñi war a jot ci kàddu gi macha allah dafa bari te waxtu nawet lañ nekk ak i tamit euh, jamonoy Covid beeg yëf yi waaw noonu sax mbàkke dimbali ngeen ndax noonu dañoo confiné woon boobu ba léegi six mois ngi nii yoo xam ne jàngiwul fen six mois wax naa la it fa ma jóge loola yow rek mbàkke yaa ma ko jaral waaye bu doon keneen a wax dëgg yàlla bu ma fayoon ay millions yëpp foofu moom dama ko fonk fonk goo xam ne du ma fa gaaw a kii waaw te falaa jëm falaay dellu waaw kon xam nga mbàkke <laughs> ñaar ñaar xam ne waaye ñu ci des xamuñu bisimilah <laughs>